Donc, euh, mon euh, développeur iOS là depuis euh, maintenant 6 ans. Donc, euh, mhm. c'est ma femme si pour ce qui est développement iOS là, le Hawa match. ok. Ah non, non, non, il paraît que est expert, mais quoi. Alors. non. <laughs> Ça veut dire. Mhm. <laughs> Mimistique. voilà. Ok. okay. Euh, ingénieur en informatique, j'ai commencé. jàng Android développement Android en 2014 mais. Eh, man ingénieur en informatique la donc ay sécurité informatique mooy sama spécialisation. application mobile daal euh, ab benn benn logiciel la wala benn benn programme boo xam ne day dox ci ay appareils électroniques. damay def sama épisode beneen passé expliqué ma ko ñun quoi mais je pense que yow laa war noo nga def affaire bi sax quoi. mais déggal bàyyi tooñ ñu <laughs> <laughs> kii iOS moom c'est plus privé ñoom moom dañoo xaw a siis des fois loolu laa leen di kañ. yaa ngi toj yaa ngi toj Ibrahima Ibrahima siis la sant de. waaw sant tu vois. waaw gis nga. yow tamit. alors Gérard est-ce que application mobile yi am na sécurité. gars yenn saa yi ñuy def erreur genre un pirate mooy nit ñi di def jëf kat bon yi da ngay jéem a dugg ci seen xel xam naka la ñuy fonctionner. non non gars yi non Thiaba non non am nga sérieux problème parce que fi mu toll nii gars oh, mais gars yi dañu ko waxante seen biir ah. pourquoi pas comme ni Chine def avec WeChat ak yu demee noonu Sénégal wala Afrique amuñ seen propre application yoo xamante ni moom la ñuy utiliser chaque